بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم يا الله بالمصطفى سندي يا الله وبقليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سندي يا الله وبقليلك إبراهيم يلاو وبكلمك موسى سال خدر وبصعيب وإسماعيل يلاو وبسليمان نوح يونس اليسعي وزكريا يا يعود يلاو هارون يوسف إلياس ودمدان هدى وزلكبل سالوت يلاهم ويوسف وبيساق وغيرهم من أنبياء ورث لك يلاهم وبالملائكة ترا ثم سفوتهم جبريل ثم بميكائيل يلاهم wasaay bin nafis rabi raqabi di ar waayil xalaayiqi mbokk yi seetaan seen télévision MK TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal Euh, ñu ngi fii ci biir barab bu tedd bi di jumaay Touba ci bis bu màgg bi nga xamante ni mooy bisu alquran ak xasida ak zikrullah bisu tuub dellu ci suñu borom subhanahu wa taala toroxlu ñaan suñu borom mu indi jàmm indi nawet bu barkeel indi naataange ci biir Sénégal ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha alxalifatul am li tariqatil muridi yàlla na fi yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te may ko wér jaare ko ci ki yor kàddoom muy Serigne Bassirou Mbacke Abdoul ak mbooleem njabootuk sëriñ Touba gi ngir ñu taxawal bis bi di dëppoo ak altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2022 euh, bis bi nag biñ ci lu jiitu ñu koy jub fukki fan ci lu ko jiitu euh, kuréel yi nga xamante ni ñoo séq liggéey bi daje nañ ci muy euh, rabitatul madarisil quraaniya ci njiitul sëriñ Xabbaan Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne moom la ko dénk boo ànd koog waa rabita bi waaye itam kuréel gi nga xamante ni mooy kuréelu ñiy durus xasida ci njiitul sëriñ Xamsatu Mbàkke moom sëriñ bu ak mbooleem waa Jaalibatul Maraaxib ak kuréel yi ci aju waaye itam daara is bu tarxiya nga xam ne lépp luy njàngum kuréel yi ñoom itam ñoo nekk ci bopp ba ak mbooleem kuréel yi nekk ci dëkk bi te war a bootu ci seen ginnaaw waaye itam lu mel ne kuréelu Zikrulaah yi te euh, waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall buy Baye faal yi ñoom itam nekk ca ñoom itam lépp ci biir liggéey bi waaye nag liggéey boobu nag ñu war koo defee fii ci jumaay Touba te ku tudd jumaay Touba da nga tudd daayira Muxaddamatul Xidma ak organisation bi nga xamante ni moom lañ war a organiser ba tax na mbooleem matukaay yi nga xam ne war nañ ko waroon nañ koo jël jël nañ ko def nañ ci ay ndaje ak kuréel yooyu ba ànd ak ñoom liggéey bi ba booloo ndax mbir mi dafa yaatu yaatu goo xam ne ñëpp xañ nañ ci fa tabarakallahu mbooleem kuréelu waa organisation jël nañ ay matukaay déployé nañ lu mat euh, ñetti téeméeri membre ci biir jumaa ji yoo xamante ni ñoo yor liggéey bi ci organisation bi fexe ba nit ñi dal ñi jàng alxuraan mën a jàng alxuraan ñi jàng xasida ànd ak dal jaxasoo bi bañ a am soxna itam ñu ber leen ba ku ci nekk def li nga war a def bu ko defee bunt yi nga xamante ni moom la nit ñi di jaar ba agsi ci jumaa ji tam euh, jël nañ ci ay matukaay ba mbooleem fu nit war a jaar ba agsi ci jumaa ji da nga fa jaar dugg te benn jafe-jafe du am fu ñuy génne itam bàyyi nañ ko xel macha allah ànd ci ak force de l'ordre yi ak kuréel yi nga xamante ni ñooy wàllu sécurité kuréelu Muxaddamatul Xidma bi yor wàllu sécurité jo jokkoon ci ak mboolem kuréel yi wàllu sécurité ngir liggéey bi doon benn ba tax na matukaay yëpp jël nañ ko ci wàllu sécurité ci wàllu santé itam gis ngeen ko euh, euh, dispositif yi ñu jël ci wàllu infirmerie bi nekk ci biir jumaa ji euh, matukaay ya fa nekk waa sapeur pompier ña nga fa waaye itam waaye infirmier yi ak médecins yi ña nga fa di ngir taxaw mbooloo mu toll nii faaw ñu jël ay matukaay ci wàllu wér yaram ba tax na am na ci am yeneen kuréel yoo xamante ni seen liggéey mooy fexe ba xéewal yi nga xam ne moom la ñu war a xéewloo ñoom ñoom ñoo koy toppatoo wut ay barab yu ñu ko def fexe itam ba bañ mën koo tasaare te benn jafe-jafe du am. ci wàllu communication tam jël nañ ci ay matukaay euh, MK ànd ak mbooleem ñi nga xam ne lay liggéeyal ci wàllu communication ñëw nañ. ànd nañ ci liggéey bi ñi ngi def ay reportage ñi ngi def ay interview ñi ngi def ay direct ngir nit ñi fu ñu mën a nekk ci àddina bi dara bañ leen cee ump kon daal mm, Muxaddamatul Xidma mboolee matukaay yi nga xamante ni waroon na koo jël ci bis bi jël na ko réunion yi lañ ci tënkoon ñi ngi koy appliquer pour le moment incha allah fi mu ne nii euh, mun naa ne midi weesu na waaye euh, noonu lañ ko fas yéene wéy la ba takkusaan ba lépp euh, jaar ci yoon sëriñ bi ñëw ñaan yeewee mbooloo mi kon daal foofu lañ tollagoon ñi ngi leen di ñi ngi leen di bàyyi ba ci kanam وسائب في إسرافيل قابد أر وائل القلائق عزرائيل يلاو وبصحابتي ثم الأولياء إيمان ولا منين من الأخبار يلاو وبصديق وبالفاروق ثم بسيم نورين ثم بسبتين يلاو بمالك ذي المزايا صافي أبي هنيفة أمد المامودي الله بالله والقلم المحفوظ ثم بأر سك العظيم وبالكرسي الله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما daawuda jaabi wa ruuya laawum bali salaati wa tasliimi alayhi lawoom walaali wa saabi wal azwaaji laawum wa asbilanna alaynaa rabbi aafiyatan wa ablana alqasda fi daarayni laawum waftah lanaa kulla baabin kunta faatihahu lisaalihiina min alxayraati laawum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 muy Cheikh Mahamadul xaban mu Cheikh Mahamadul Fadel mi mu dénk liggéey bu alxuraan bi ak Serigne Xamsatu mu Serigne Sohayb mi nga xam ne mooy toppatoo lépp lu jëm ci xasida yi ak suñu mbokki isbu tarxiya yi ak suñu mbokki bayfaal yi ak taalibe yëpp ak jullit yëpp xëy si nañu fii ci jumaa ji ci penc mi ci mboolem li ko wër ba ci penc yi nga xam ne sax ñoo wër ak ñu ne fa mu gën a jàpp jàppandee ci ñoom ñu xëy jublu ci ndigalal sëriñ boobu muy jàng alquran jàng xasiida sikrullahi bernde tuubal suñu borom jéggalu ko nii ngeen ko gisee bi fukki waxtu jot daanaka jumaa ju mag ji gis ngeen ko fi mu toll euh, boo demee ci euh, li ko wër lépp kasaalika ñëpp ñi ngi ànd xëy nekk ci ndigal li di ko doxal noonu nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee woon di ñaan suñu borom mu nangu ko euh, defal ci sëriñ bi ak bëggam waaw loolu alhamdulilah rabbil aalamiina sëriñ bi moom day mel ne lu mu def rek am na xikma euh, daaw xam na ne dañ ko woote woon muy bis boo xam ne ñëpp dañoo daje si woon waaye ren mel ne dañ ko yaatal nga xam ne ci biir réew mi ñenn ñu ne fañ ne ña ngi koy def ba ci biir dëkk bi sax barab yu bëree bari loolu day gën a doon tawfiq ci dimbale ñu bëree bari ñu mën cee bokk. ndax su ñëpp ñëwandoo woon ci penc mi yéene ji dana am waaye ñëpp duñ mën a ànd ci kon loolu lu am solo la kon nii ñu koy defee ci biir dëkk bi noonu lañ koy defee ci mboolem dëkk yi nga xam ne taalibe yi ñi ngi fi kër sëñ Tuubaa yee ne fa ak daa ya yaatal ko lool ba ànd ko mbokki jullit yi sax am na ci ñoo xam ne tey jii ñu ngi ko bàyyi xel. Eh, déedéet lim bi moom xam naa ne mbooloo mi dañuy ànd rek jàng ba incha allahu suñu sëlmalee tisbaar eh, kilifa yi xatmu su ko defee eh, ñu ñaan waaye mel na ne lim yi ndax soo doon wër ci biir jumaa ji rek mbooloo ngi fi ñoo xam ne kenn ku ne da ngaa jël sab kaamil rek tàmbalee fatiha baqara wuti minal jinnati wa naas loolu kenn xamul nu mu toll daara yi kasaalika mbooloo yi te dimanche jële weesu li le lañ ko tàmbali woon eh, ba tey jii nga xam ne kon lim yi kenn xamul nu mu toll waaye nag sëriñ bi sakkuwul ne nañ ko dajale daf ne rek nañ jàng te ñaan yàlla toroxlu